looloo waral tey ñu ñëw seet si Eumeu seen ginnaaw raay xool ni mu toogee mbokkam waaye ni ma ko gisee dafa mel ni ndam neex na mbër maa ngi lay nuyu baax ndam neex na de waaw asbillahi <laughs> mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bu ñu sante yàlla julli si yonent bi sant sumay ñaari waajur hmm. sant sama sëriñ suñu Mor Abdoulaye Fall Ndar yàlla na yàlla suñu borom yokki leeram te taas si barkeem di santaat bu baax aussi sama sëriñ si Cheikh Bintou Fall ñaan yàlla suñu borom yàggal taxawaayam. Mm-hmm. di nuyu waa Ndar Fall ak waa Kawsara Fall yëpp. Mm-hmm. di nuyu soxna May Fall suma jigéen suma xarit sama sang. Mm-hmm. di sa cameraman sa cameraman bu ñaawul bi kii nga fa ñaaw waa kër tamit. <laughs> gi maa ngi koy ñaanal yàlla suñu nuyu mère Mbaye aussi ma koy ñaanal yàlla suñu borom xaar ko àjjana. di nuyu waa Géejawaay ak waa ginnaaw raay bi koñ manko hmm. di nuyu waa Mbour aussi. di nuyu ñi ma àndal ci combat bi yëpp yëpp yëpp. Hmm. di nuyu waat bu baax a baax di santaat xam nga di nuyu ñi nga xam ñoo fi toog. Hmm. taxawaalo suma sama zuma la. suma doomu baay la Matar Thiam. suma papa suma xarit la. Idi Thiam fils la Xaadim Samb doomu ndoy Paa Matar Sarr. maa ngi koy siyaar bu baax a baax. di nuyu suma frère yi Balla ñoom son xam nga ron maa ngi jaar Siteu maa ngi koy jaar bu mm. Mm. ci man moom tamit aussi mm-hmm. ay booy yu man Amet Papa mm-hmm. Mansour mm-hmm. ma leen di jaar booy yëpp xam nga occasion la moo Penda aussi ak yaayam mbenn di nuyu waa kër gi yëpp c'est normal ma sant leen gërëm leen parce que dëgg la loolu si ñu laa leen mën a la ñuy daj si ñun barki Serigne Bamba di nuyu suma benn booy aussi Papa Petit bu baax di nuyu waa ginnaaw raay yëpp yëpp yëpp di wax ne directeur d'emploi joxe liggéey. <laughs> directeur bi yor wàllu joxe liggéey <laughs> ah, waaw. Dame Diop ah. Dame Diop. ministre de joxe liggéey. Ah. ñu koy siyaar ko wax ne gis nañ taxawu bi. Pa Pape Modou Fall directeur général de l'emploi joxe liggéey. ñu ngi koy siyaar mm. di ko jox wàccuwaayam. Mm. xam nga ak Karan Assane ñu ngi koy siyaar bu baax Sidi Diop ñu ngi koy siyaar. Mm. xa ak euh, Omar Samb tamit ñu ngi koy siyaar bu baax di wax ñu gën a jàpp. yu mm-hmm. waaw Jurbel yëpp daal ñu lay wax parce que Jurbel daanaka ñoo ñoo ŋànk nguur gi ah mm-hmm. waaw Jurbel ñoo ŋànk nguur gi mm-hmm. di la nuyu di la jox sa wàccuwaay di la baalu àq ne laamu noonu la xam nga saa soo xëyee dañ ciy jàng dinañ ñëw ci loolu mais ama dafa am loo ma waxoon ne ma bu leen di jotee di ma xool ma xool la ak luy mënti xew. Mhm. man dinaa la xool ci bët nga xool ma ci bët. boobu kon xamoon nga ni da am ndam donc doon nëbb. dee walaay sax du question xamoon naa ne damay am ndam lenn laa la waxoon. Hmm. dama ne la ak lu mu mënti xew. mënoon hmm. naa am safaan noonu naa am mbégte suñu hmm. borom moo def ma mbégte rek. même dama ne la làmb ja kenn du ma fa jéppi. même suñu borom bu ma mayul leen ndam kenn du ma jéppi ndax naa def ma war a def. muy li ma yàlla suñu borom defal di ñoom ak jàmbaar. damaa leer na may am ndam déedéet. Hmm. waaw du nuyu ñi nga xamante ni tamit tax bisu sant lañ nekk. da hmm. may comprendre rek bisu sant. di nga ñëw di nga sant ñëpp de da ngaa yàqamti rek. <laughs> du nuyu ñi nga xamante ni dañuy sonn si man di ñaan. Hmm. waa Jilaas waa Ñaaxar. Léwo Père Léwo. maa ngi koy ziar bu baax a baax biram sama papa la suma lépp la. maa ngi ko nuyu bu baax moom tamit. xam nga Serigne Modou Cissé. Serigne Malick Cissé ñu ngi leen di ziar bu baax. ak suma bokk dongo yi ñu yor yëpp ay daara lañ yor. Hmm. di war waa Jurbel yëpp yëpp yëpp. ci mel ne hmm. saa daaru gis nga coono bu ne lay daj. ci di ñëw ci gërëm yi nag léegi di nga ñëw ci gërëm yi. Hmm. bu ñuy bu ñuy loolu nii moom dinaa la may dinaa la may 45 minutes nga gërëm xanaa loolu moom sa xel day daal. une heure baax na <laughs> amul benn problème léegi. Euh, nga ngemb démb. préparation bi bi nga demee bay génn sa kër. gis say mbokk gis say xarit. gis say njagañaali gis ñi nga gëj a gis sax ci bis. Hmm. ban yëg-yëg nga am. waaw bu may génn benn instant bi may génn fii grand ji bi di ma ñaanal sama tournant ay xéwal sax. Hmm. ma génne ba ci bunt bi toog gis xam nga di def suma ay quelques bagages suma gars yi doon def looy ñoom tafawaalo hmm. xam nga ma xam ne man mii daal maa ngi jëm xare te xare moom il faut ëpp solo li fay feeñ mooy njom ak ndax su may mbokk def na war a def yëpp. topp nañ ma. Mhm. kon man maa war na ca géew ñu wax naan làmb lub teen la moom ku ñëw ca ci pind ba ngay yem maa la ko wax or lub la ku ñëw ci pind ba pind ba ngay yem maa la ko wax ñu ñëw xam nga rek mhm. yàlla suñu borom suturaal ñu mhm. ba ñu amee ndam noonu mais ñun daal lépp luñ gëm ci àdduna mooy yàlla moom moo yor ndam tout le temps mooy xool ku ko neex mu jox ko ko waaye dama naan tout le temps ak njom ak ñàmbaar ak fit suñu borom moo koy def ci moom. Hmm. ñun daal loolu la ñuy xam ne saa su ne moom dañuy ñëw assuré ko. Hmm. mais leneen li yàlla suñu borom def moom loolu yàlla na ko may. jeex na daal xañ na defuñu ko nag lu tax mu may ñu doon. Hmm. xam ni deful lu tax suñu borom xañ ko doon. bon day ji mënuma ko de. mënuma ko dara. maa bëri moom. li am solo daal ba am solo mooy dañuy sant yàlla bu a baax a baax a baax. waaw sant yàlla bu baax ñu ñëw ñu ñëw ci combat bi. Mm-hmm. arbitre bi dafa sifflé. kan bu ndóor féetee càmmoñ. wala boog mu woon ma ginnaaw. Mm-hmm. nga jàkkaarloo ñun. Mm-hmm. bi arbitre bi sifflé yi ñaar mën nga ma expliquer nan ngeen bëree. waaw arbitre bi dafa sifflé man ak moom. ñu ngi léwtoo waat mu jàpp suma loxo bi bu baax sax. waaw man tamit ma bëgg mu bàyyi sama loxo ma dër ko turaat mu bàyyi. gis naa nga xaw a mel lu xaw mel ni fi mu jàpp dafa baax. waaw dafa jàpp bu baax da ko doon damm wala da ko jàpp naj. non ku am ngëb la ku dafa am ngëb rek moo tax mu jàpp loxo bi bu baax dafa am ngëb. Hmm. ba pare dafa éliminé kat baaraam yi hmm. hmm. am ngëb macha allah. bu mu ma bëgg mu bàyyi tamit ma dër ko droite mu bàyyi tamit faywaat droite ma dugal gauche mu mu ñëwaat dugalaat droite am mu dugaatee droit am mu jàppaat sama loxo ma dóor ko door bu dal mu bàyyi ñëw bëri si. Hmm. épingle ñëw jàpp ba dëgër. daw kali sama sama deuxième pied bi. Hmm. bi mu kal ma oyofal pied boobu rocc ko dèjà moom day perte équilibre. Hmm. parce que pied bi mu kal dèjà nekkatu fa. ngelaw dong la fay fekk. ma pivoté ci kawam. nga pivoté waaw. moom bi ngeen yegg dafa mel ni moom moo la gën a jiitu moo moo forcé action bi mais moom moo la gën a jiitu ci suuf. waaw moom laa lay wax ni moom tey jii. dafa mel ne nit nga mbal nga nga war a dóor bal rek mbal dóor si air bi. Mhm. débordement xaj na fa. Mhm. baaraam ci bakkan xaj na fa. Mhm. lu ne xaj na fa. parce que da ngaa mbal. loolu moom moo li ma la wax moom dafa kal sama deuxième tànk. moom mbalul ka bi ko kalee tànk bi laal na. mais daa mbal finalement daa kal ma ko léegi tànk ba libre yow bal bi muy ñëw xam nga ni bal bi da koy dóor. loolu la nga def sa xel. mais da mbal. te hmm. xam nga da ngay dóor bal bal bi ñëwee yaa ngi nii. Hmm. yow jàpp nga da nga koy dóor la mën a ballo. waaw loolu moom moo ma jaaxal ma. la loolu moo jaaxal ma nii. moo jaaxal ñëpp. <laughs> mais ma jékki-jékki moom gis ci biir xeex bi ngeen jàmmaarloo. Hmm. Kalmandu dafa ñëwoon bëgg la agressé. mais bi mu dóoree da ko dóor. arrêt de droit bi nga ko dóor dafa dal trop. est-ce que du loolu moo tax mu mu mu wàccee xeex bi moo doon def. waaw parce que doon wax combat bi moom. maanaam am na ñu doon wax naan xeex bi suma avantage la bëre bi suma avantage la. Hmm. bi avantage am la moom. Hmm. mais man dama indi ci làmb ji ne man lépp sama avantage la muy di xeex. yow parce que man toll ma fu may fu ma mbër bu nga xamante ni maa la jiitu ci làmb nga war ma ñëw jàngal bëre. Hmm. non tollatuma foofu ci làmb. peut-être ma bëre keneen nag mu nax ma ci làmb mun naa am. parce que saa suñu xëyee dañuy jàng ci làmb. làmb kenn mënu ko wóobale. roi de arènes nax nañ ko fi daan ko. Mm-hmm. mbër mu të daanuwul daxañ ko fi daan mm-hmm. kon lamb fu mënu koo mokkal mm-hmm. léegi dañoo ñëw rek def li nga xamante ni moo nekk ci ñun bàyyi xel ne tout le temps ñun ñi dañuy xeex dañuy bëre li nit ñi di wax naan jël favori bëre bi jox ko ko peut dañuy jàpp ne ñooñu dañ ñoo xam parce que suñu bamba dañuy bëre waaw c'est-à-dire da dañuy fay moom fayu nga kay. non duñ booñ dóor sa loxo yi kay foo ko dóor buntu feeñ. moo tax macha allah <laughs> bi nga dóoree buntu feeñ la. <laughs> booñ dóoram dañ. <laughs> yaa ngi ree boos. mais bu jékki-jékki. gis nga daan ko. ndaysaan nga xool ko beneen bët. bu bokkut ak bëtu mbégte. ndax xool nga ko lu yàgg jékki-jékki kott ko lan nga doon wax moom ak bët bi nga ko doon xool ban bët la. démb maa ngi nuyu waa Rente DKR di leen ñaaral jàmm. Hmm. di leen ñaanal lu kaw seen jot ñoom ñëpp. Hmm. may wax ne démb damay wax ak kenn si ñoom bi may waxee moom xam na laa ko wax. ma ne ko dama ko yërëm bi ma ko daanee ma xoolee ko yërëm. xam naa la ak làmb. Hmm. xam naa la ci làmb. déception maanaam. ma xool ko yërëm ko ma xool ko ma ko gis sam bopp quoi. ma ne ko baal ma ma. làmb la. Mm-hmm. mun nga amaat suba mm-hmm. loolu laa ko wax. nga ne ko baal ma àq jéggal ma mun nga am suba ndam. moom mu tontu la la. non tontu moo pare boobu parce que émission bi jàpp na ko. Mm-hmm. mais après ndeysaan defal na lu rafet ñëw si man xam nga ñu saafonte. ñu doon nuyu yëpp ñëw ak waa Ikirem. parce que aw ma ca kenn xar ma yàlla. Ikirem aussi tamit ay nit yu joxe cër la waaw kenn dépassé si kenn waxuma si dara. waaw ma leen di ñaanal ñoom ñëpp jàmm. nga wax na ma njëkk ko wax sa plateau. Hmm. Kaamu Ndour woo na ma tey ci suba. Hmm. vraiment waaw félicité ma. moom moo jël téléphone woo la. woo def lu rafet def. geste bu hmm. noble. geste bu noble ma touché sax man. parce que yaakaaruma ko woon. mais vraiment lu ko rafetlu la léegi bi ma jugee géej la ma woo téléphone ndeysaan. encouragé ma. li ma wax ne waxal sa gars yëpp xam nga maa leen di char. wax wax bu rafet. dama ma delloo ko la même chose jox ko wàccuwaayam. parce que ñun day doon poos mbaa mu dooni kàddu mm-hmm. mbaa mu doon bët waaw mm-hmm. naa loolu dara nga àdduna ñan bët mm-hmm. waaw ma jox ko koy xaar ko ci ay kàddu ba ma sëkk ma saw ko coono ñaanalaat ko jàmm comme ñi ma koy ñaanalee ñëpp encore une may wax ne ñun ay donga lañ ñun mënuñoo weesu dong te donga la ñuy doon ba keroog ñuy dee soxlawul leen lu ak ndong waaw dañ sant Serapal saa su ne lu Serapal amul bëgguñu waaw ñun dañuy sant Seera Fall saa su ne. ndax dañoo judd ci keppaaru Seera Fall. te wanaw sax la ñuy wax dañoo judd ci wanawu Seera Fall. waaw. kër Saalum lañ mm-hmm. yor ci ay mbana ci waa kër sëñ Modou Abdoulaye Fall ndax. Mm-hmm. kon ñun dañoo judd ci ak Baye Fall. waaw dañuy santaat yàlla bu baax di gën a féddali suñu cofeel ci Baye Fall suñu cofeel bépp Sénégal ak bépp jullit. Mm-hmm. ak suñu cofeel bu baax a baax a baax ci waa Ndar ak waa kaw Saraxa nga daan Calme Ndour foo jëm. waaw maag Boy Niang combat la. Boy Niang ban. ñaar xamul ban Boy Niang nga wax ban Boy Niang. yow wax ma ñaar Boy Niang xam mu ma leeralal la. man de xam naa Boy Niang bi dëkk Géejawaay Maguette Seck xam naa Boy ñaar càppaa coli bi. càppaa kon càppaa coli bi laa. <laughs> non kooku mu ngi ci contrat mu ngi ci. ñaari bu ngi ci ñaari avant man damaa bëgg nekk ci ñaar. kon yow génn waat biir Pikine da ngay duggaat foofu. non du question ko biir Pikine sax affaire lamb la rek man ñoom ëpp ñu may nit Pikine de man Pikine ma fi génne. a nga génn ci écurie ba bugg duggaat ci écurie ba lu tax. bi may ne ci écurie ba. ah dama génn ci écurie loolu dara. boo ñaa ñaata yow génn kalmu du duggaat bëgg a daanaat booy ñëw. Ah, loolu dara nekku ci lamb la rek. ah comme daanoon na ma mbapat kay ñu ngi koy wër yokk ne nañ nañ bëri arène. bëri ngeen mbapat mu daan. waaw wax na dëgg de daanoon na ma mbapat mais ah. daanu na mbapat j'espère que mbapatu Ndeye Ndiaye Tyson moo ko tëggoon te jour boobu man maa daan favori yëpp. du boobu. <laughs> maa daan favori yëpp xamoon nga Giri 2. Giri 2 Giri Boro numéro 2. benn géant bu nekkoon Medina. Hmm. man maa daan favori yëpp te yàlla xam nañ ci feebar laa jóge woon. maa daan favori yëpp. nga bëre ak Boy bi ngeen di ci ban moment ngeen bëre huitième de finale. quart de finale lañ bëre man ak moom. ma daw jàpp ko fàq. mu rëpp dafa kaa def ma jàpp ci loos bi. Mhm. ndax boobu maa ko gën a diis te ba nii maa sax. Mhm. ma jàpp ci loos bi nag arbitre ci daanu na barke Serapha du caaxaan arbitre ci daanu na mu génn ma rotation ma teg fees. noonu la làmb ji demee ñu jox ko victoire bu leer. Mhm. wax nañu ñu bëri aar loolu dara làmb la. est que boo ñaar dina la jël est-ce que boo ñaar gëm na ni yéen ñaar war ngeen a mën a bëre parce que day jàpp ni ah loolu da ko gëmul xanaa du amoo leen ay adversaires yu leen mën a boole quoi. comme na ay adversaires potentiels yoo xam boo ñaa daan na diw nga daan diw yu mel noonu. waaw loolu dëgg la de waaye tamit Calme Ndour mi dama am adversaire bu ma boole moom boo xam ne war na tax ñu bëri. xam nga mais làmb la rek affaire xam nga nekk affaire wërsëg gëm-gëm bëgg-bëgg. détermination point. nitu làmb yi ñu bari dañ naan Eumeu Sène junior nag bu ràmm la nag yaa koy daw waaye dawul benn nag moom xale ak paa <laughs> wax. <laughs> moom ku ñëw day jël. mais instant nag. il ah. est temps yi bëree ñu bëree ak gars yi. nga bàyyi ñee quoi nga bàyyi xale yi. tey munoo fi boo fi munoo ne nag nag boo gis. Hmm. tànk bi teewoon. damm rek su ma waaye bu ñu koy fees nga ne yaa koy damm di nga mës a ab tànk mu ne teel li ñu yaakaar ne tànk bi la fekk sa loxo la. sa loxo la <laughs> dëgg la. mais nañ waxante dëgg tamit. mënuma hmm. jeexal booy. Hmm. dañoo bàyyi ma bëree gars yi dama bëgg a si kaw koom ñëpp. Hmm. bëgg si kàr kàr yeeg kër yi. parce que ñun daam ñu topp suñu ginnaaw dañoo yaatu ginnaaw loolu macha allah. waaw. léegi budul booy ñaa ak kan. booy ñaa moo fi. booy ñaa moom mu ngi ci ñaari combat. waaw budul booy ñaa ak xanaa doo xaar boo ñaa bëre ñaari combat ngay doog a jël avance. waaw moom maa ñëw nii ay boo ñaa. Yékini Junior sax na ñëw moom it ma may moom it dafa am problème mu adversaire sax ku ne nee na ku ne da koy daw. mi ngi saako bi mun na ñëw moom may ko saako la ne. Tafaatine la mujjee bëreel Tafaatine daan. ah jërëjëf saako. da naan kay mi ngi ci digg saako wala mi ngi ci fin saako bi wala mi ngi saako moom mu ngi ci suuf saako. moom dugg na ci biir saako. dugg ci ndànk. léegi yow loo bëgg a takk saako bi Ah, mbër boobu bu xasee dugg ci biir saako xanaa yow boo ñëwee da takk saako bi. du ma ko takk ndax boo ko takkee nit mën naa sof ñëw teg dama koy ñaw saako bi. Yékini Junior. waaye damaa ragal loolu. bu la bu la euh, Alain woon léegi léegi ne la avance avancé Yékini Junior ba jël. mën na ko indi te indaale ma ab oto. oto moom bëgg naa ko trop na ma ko gars yi ñaan la waaye li may paas bari na trop. oto ba léegi ah ana ana sa gaay gaay moom waroon nañ laa mën a. Ah, waaw war naa mën a nekk de bari ay nit ñi surtout Diourbel bari naa ay borom bu mu bëggoon ma dawal tey oto ma dawal tey oto de. mais Sidi ah? la moom lépp la. bëgg na ko kay xanaa da ko da ko yëgul woon. waaw waaw yëgul woon di sa bébét. <laughs> waaw taw fex la moom moom. ndeysaan ñu ngi koy nuyu de passage. di ko hmm. jàmmal ñal na ko yàlla suñu borom jàmmal. ku mën a sonn ci Baye Fall gi la. ku hmm. mën a sonn ci taalibe la. Hmm. waaw surtout waa Diourbel jeunesse Diourbel bi bu sañoon ñëpp xëy. mu mhm. ngi koy ñaanal bu baax suñu borom yeggal yeneen incha allah. Mhm. bu soobee yàlla. Mhm. mais daal dama gars yi ñaanal ma am ci oto yeeg kër yi incha allah. ak combat yu taw feexe. incha allah rabbi mais ñi ma tegale nii daal bugguma ci tegaat ay yeneen booy. Hmm. maanaam jëlatoo booy quoi. non maanaam du ma ne jëlatuma booy. Hmm. parce que mën na ma joxaat booy yoo xamante nii comme combat bi lay doon lu mënul ñàkk la day am. Hmm. mais bugguma bëriwaat ak booy su fekkoon maa tëgg sama bopp. Hmm. du ma bëriwaat ak booy damay bëri ci kaw. mais maanaam mbër la hmm. promoteur yi ñu yor seen xaalis. Hmm. làmb laa yaakaar sama njaboot. am na lu nga xamante ni du ma ko xaar te mënu ma ko xaar. cëm bébé guy gee ngoog. non ak ay ndaanaan champion mais bëgg naa wax ci moom parce que bébé guy gi. daan na benn instant bi mu daanee nga daw ñëw ci digg géew bi. Mhm. ngeen daje yéen ñaar. Mhm. mu kott la. bi mu la mhm. kottee dafa mel nii am na leneen loo yëg seen diggante yéen waaw maanaam doomam bi daan na doomam bi daan na bi. dama ko doon ñaanal naan ko yow soo ñaanal daan man yàlla naa daan. loolu nga ko doon wax. barki maam Serap Fall te moom loolu ma doon wax. ma doon wax naan yow soo ñaanal daan moom yàlla daan mais man ñaanu ma woon yàlla moom mu daanu ci bés bi. lu tax loolu. bi muy bëri dem naa ba man ñi ma àndal samay mbokk naa ma koo sant ci làmb ji yow. Mm-hmm. nga bëgg a toog man leen kii da ngeen xamul kii ni fi mu toll ci man. su ma rakk la su ma xarit la te daf maa yéene dafa yaru bien bu vrai que bokkuñu religion man ak moom. Mm-hmm. mais fu ma yóbbu damay dem fu ma ko yóbbu day dem. ñu préparé combat ñu koo yàq. fépp fu ma ma moom ñooy ànd fépp fu dem maa moom ak booy càndum de maa de passage. Mm-hmm. di nuyu suma waa équipe yi ñëpp leen jox seen wàcc waa Njambaan Mbaytin xam nga bu Siteu aussi tamit bëri na lu rëy def lu rëy def espoir bu doy waar. Mm-hmm. maa ngi koy <laughs> encouragé jàpp na ma di ma saaga ci làmb yi saaga yi. Malick Ndiaye lu ngeen jote. waaw a ah, jote wuñ dara xanaa bëri naa buus <laughs> bëri naa buus na pare ma ne ko booy làmb la. Ah, làmb la boo ma ko waxaatee daa di <laughs> daa di wolofal. man sama doom yaa ngi ah, ko làmb la maa ngi ñoo bokk Diourbel. dëgg ñu ne Déeta waay ñoo bokkoon tâche nga. yaa ma doon wax lu gën a métti loolu yaa ngi nekk yéen naan Eumeu Sène junior xam na ma defal lii. ma taman ah. li nga wax loolu nag xamalu ma la ko. Ah. xam nga. Ah. tey jii loolu nga la dal démb noonu ba zemi di la jàpp di la yóbbu yéenewu ma la ko. mais nit da ngay màgg ci sa bopp. xam nga nit da ngay respecté sa bopp. ba nga respecté sa bopp parce que ay saaga. Mm-hmm. rafetul ci kenn. waaw kenn góor fi nekk kenn góor yàlla. mais mm-hmm. lépp respect la àdduna respect la. Mm-hmm. magum jëmm nga ku dem ba yor soxna yor njaboot. Mm-hmm. magum jëmm nga xam nga lu baax xam nga lu bon. waaw ñu bul nagu mukk mukk mukk mukk ñu lay doyadil say biir nawle. waaw maa lay mosaw coono bu baax. parce que loolu mënoo ko dindi tamit nit nga. Mm-hmm. waaw ndax dañuy lay daan daje di saafonte man ak mm-hmm. yow sa combat bu ko yàq. Mm-hmm. non non non ko yàq. moom daal li muy bañ mooy làmb la bul ko waxati làmb la. ah dinaa ko maanaam Ndiaye yaa bu Siteu làmb la bu la loo may saaga. waaye <laughs> daa ma saaga nag ma noppi bien saaga boobu saaga bii ak saaga yi ma ne saaga du benn. bokkul ah, waaw saaga baax. ndeysaan ndeysaan bu baax kontaan naa ci ñëw bi ma ñëw ginnaaw mm, raay fekk la say ko kër mm. fekk laa say xarit say rakk sa mm. famille yëpp kontaan naa ci bu baax a baax a baax mm-hmm. ma lay jaajëfal bu baax waaw man tamit maa ngi kontaan ci yow di la ñaanal suñu borom gisoo nii sa waay dafa doon tourné caméra bi sax yaa ngi fekk ñu yaatal ci wasaare nii waaw di seetaan ci wasaare xam nga wasaare mooy loolu ndeysaan waaw mm-hmm. di ñaanal jàmm suñu borom dem ba suuf bi dem yàlla suñu borom dem ba def ko télé. Mm-hmm. muy télé bu mag. Mm-hmm. waaw di leen ñaanal tawfeex ak taysiir. Mm-hmm. jàmm ju bari ak i koppar. ak ak xaalis. ndeysaan baax na bool bool loo bëgg ab xaalis. dañoo bëgg xaalis ab xaalis dafa baax xaalis li ngay waxee sax xam ngir di ko bëgg xaalis ak xaalis. surtout ah. jamono na trop. ak waa Géejawaay. waaw maire Géejawaay bi tamit jàppale na ci bu baax a baax. waaw. li mun a xamal mooy sama reliquat nit ñee ko moom bor bu yàgg la woon ci combat bële. na bu yàgg bii nii damaa bëgg ngeen jàpp maa ngi nii toog ne tocc. waaw ci ndam tamit surtout. jugee ci ndam gis nga gars yi dañuy ñëw ku nekk ay ñëw. Mhm. nit ñi dañuy foog ku nekk ay foog dara dara ñu ngi. Mhm. Mhm. sant yàlla ak seen rafet li ñuy wax naan manqué wuñ dara ñàkkuñ dara. waaw. waaye ab góom nag moom boo xoolee du métti. waaw ñu ngi nii daal toog jàpp suñu njàmbur. bokkuñu ak ñëpp nag. Hmm. waaw fi ñëpp dem ci laaj ñun bokkewuñu fa. mais maa ngi may may nuyu sama benn frère moo Fall maa ngi koy siyaar. Hmm. ndeysaan daa tak soxna fan yi moo tax amul jot daan dafa hmm. ne ci néeg bi sax. ndeysaan waaw dafa jàpp. affaire yooyu Mor bu kii yoon sax si Maodo day rek. jërëjëf tawfeex la la. tawfeex la dafa jàpp jàpp. waaw dafa jàpp waaw maa ngi koy siyaar bu baax. Baye bu baax ak soxnaam. di nuyu grand ji bi fay bu baax a baax. Mm. may nuyu suma ñaari mag ñu nga xamante ni yàlla suñ borom daf ma boole ak ñoom. Mm. muy Balla Faye ak Ablaye Ndiaye. Mm. ki sama taaw papa kii sama taaw yaay la. lu ne la daj ci man. lu ne lu ne lu ne. Mm-hmm. Père Thier Père Thier maa ngi koy siyaar bu baax borom kolobaan mm-hmm. Père Thier sama papa la mm-hmm. lépp lu may def ci àdduna fi mu toll nii aw ñaanuma yàlla def loo xamante ni du ko yëg ndax séegi la fi jógee léegi ak Père Ba Yuga ñu naan ko Ablaye maa ngi koy siyaar aussi tamit di ko ñaanal jàmm Mm-hmm. di leen wax na yàlla na yàlla suñ borom yokku yàq yokku seen taxawaay bu baax a baax a baax amiin amiin di nuyu suma frère yëpp Xaadim Njaay maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax mm-hmm. waaw geste bi ngay wax mi ngi nii ndeysaan waaw geste bi ngay wax mi ngi noonu mm-hmm. sama bu rakk la suma xarit la bu daanee damay kontaan daal damay bég damay bég barke sëriñ Bamba waaw ma koy ñaanal moom tamit suñu borom defal ko beneen fu mbaam moom ci ndam. Mhm. may nuyu waa Diourbel yëpp yëpp yëpp yëpp ma kenn waa Diourbel yëpp yëpp grand Assane Sylla maa ngi lay siyaar bu baax. Mhm. def nga sa wàccuwaay ak sa waruwaay. li nga mhm. xam te ne war na sa raq def nga ko. du ma la sant du gërëm li la war nga def. maa ngi ñaanal jàmm di ko ñaanal ñëpp. di nuyu suma frère yëpp ak suma benn koo xamante ni maa moom ñu doon nekk tout temps fii mais léegi daa féete Diourbel. dina ko Assane Ndiaye Assane Ndiaye Assane la jox sa wàccuwaay mhm. la wax ne ñëwaatal Ndakaaru Ndakaaru neex na jeew mhm. waaw di nuyu ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp di ñu ñaanal suñu bàyyi ñu dëddu yàlla suñu borom xaaral leen àjjana ak mboolem jullit mhm. ma lay baalu àq bu baax a baax a baax am solo ndax démb xam ne nu mu demee man ak yow tamit mën naa baalu Paul fii tamit moom tamit kan la Paul mën naa wax mu baalu naa xulu non dafay ñëw démb toog <laughs> man tamit sama jigéen sama xarit sa jigéen saxar mi ak weex la. Hmm. ma am lu ma lu ma sama téléphone fay. Hmm. embouteillage bi ma pël hmm. baal ma àq. woo naa la ci fay nga xam ne su ma dinaa la woo. dëgg la pël nit da ngay ñeex deret. <laughs> ndeysaan bàyyi da xarit la de. sama xarit la de. <laughs> xam naa ni moom dina tàkk sama kaw. <laughs> mais ñëwul ñu waxtaan maa ngi nañ dinaa wut suukar dinaa wut suukar jox ko bu bu xaw a seen waaw waaw weex bi xaw a wàññi boo demee dëtt jeeraw sax dara ji naqar na waaye boo <laughs> maa ngi koy jaajëfal bu baax ndeysaan di kontaan bu baax a baax a baax ci disponibilité am mbokk yi di leen jaajëfal ci ànd bu rafet bi nga xamante ne yéen a ngi koy ànd ak wasaare làmb di leen jaajëfal di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah ci beneen xew xew làmb jërë ngeen jëf